salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen giar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, ci naqar ak tiis bi nga xam ne moom la ñu gontee ni ki sànq rek ci ngoon ñu annoncé ñu dese suñu papa euh, te ku ku ku ku ràññeeku ci làmb ku ràññeeku ci réew mi sax muy suñu papa booy bàmbara ñu gënoon koo xam ci Aliou Camara ci ñi nga xam ne xam nañ ko ci dëkkuwaay ak ci barabu liggéeyukaay ak yooyu ñu xamoon ko ci turu Alioune kamara ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci làmb xamoon ko ci turu euh, Boy Bambara mu nekkoon sunu papa joo xam ne euh, mën nañ ne sax xajoon na fi waaye rek li ñuy wax comme que jaam ñi moom euh, fii barab la boo xamante ni mënuñu fee ñàkk jaar waaye yàgg-yàgg ku ci nekk da ngay dellu ci sa borom loolu nag nekk naqar woo xam ne nii tiis woo xam ne nii dal na ci kaw axlu làmb waaye dama naan sax dal na ci kaw réew mi yëpp bu ma nee réew mi yëpp nag euh, dina neex a dégg ndax per Boy Bambara ku ko waxoon euh, wax ko ak police nationale mu nekkoon fa moniteur euh, liggéey fa liggéey boo bu mucc ayib ba fa la retraité ku wax per Boy Bambara aussi da nga ko wax ci équipe nationale bi nga xam ne entraîné na ko ci wàllu làmb ku wax per Boy Bambara yi di nga wax benn champion d'Afrique boo xam ne Euh, liggéey na liggéey bu am solo ci wàllu lutte gréco-romaine euh, nekk ci champion d'Afrique nekkoon aussi euh, suñu papa joo xam ne nii mu ngi jamonoonte woon nag suñu yeneen i papa yi ndaanaan ci wàllu làmb yoo xam ne ñoom it saa yoo leen tuddee rek tudd taarix boo xam ne def nañ ko ci làmb ku ci mel ni suñu papa Arona Mané nekkoon koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb suñu papa Modou Pouy moom tamit koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb suñu papa Double Less di ko ñaanal yàlla may ko wër euh, suñu papa aussi Robert Diouf di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi ba ca kanam kanam suñu papa Pape Diop suñu papa Pape Touré ak suñu papa Kati Diop ñooñu nga xam ne ay naataangoom lan euh, ak suñu papa Ambroise Sarr mi nga xam ne actuel euh, actuel coach national bu bu làmb moom aussi ñu koy ñaanal suñu borom ñoŋal liggéeyam te fépp foo xam ne nii bëgg na faa yóbbu rek euh, équipe nationale boobee mu yore suñ borom matale ko donc ñooñu ñëpp bu ñu leen tuddee euh, jëf ju rafet ak seq gu ñu seqoon jàmm ak liggéey bu rafet bu leen boole woon moom moo tax ñu leen di site ndax ay naataangoo lañ liggéey lañ ci anam bu nekk euh, moom suñu papa boobu moo fi bàyyeekoo ni ki tey tey ajuma ji yembook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñu rafet njort nag ci moom ci bës bu rafet bi nga xam ne moom la dëddu euh, dañuy am rafet njort bu baax a baax a baax ci moom euh, ak aussi tawat bi nga xam ne nii daloon na ko mu nekkoon tawat bu yàgg ak moom metti woon lool euh, gis nañu sax ay jamono mën nañ ne le 15 avril bee ñu génn la ñu njëkkoon annoncé décès média yu bari reprendre ko jàppoon ne sunu papa jooju dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dëddu waaye tey la ko sunu borom soob tey la ko borom bi def foofee ca parcelle ñu war koo denc niki suba nag incha allah fa yéene koo jébbal boromam. noone la ñuy def mbokk yi daal di jokkoo ji ak euh, jiili Kebe mi nga xam ne reporter la ci wasaare làmb mais laata boobu waa wasaare làmb yépp ak bépp média bu nekk ci réew mi rek ñu ngi jaale sunu papa euh, père Boy Bambara moomee euh, di ko jaale ay doomam ay njabootam ñépp ñi nga xam ne am di jaamam lanu kon jiili la ñuy jokkool ci téléphone bi rek moom aussi ci ay témoignages yoo xam ne fas yéene na ko indi ci sunu papa jooj ak lenn li nga xam ne jot na koo xam ci moom euh, du ñàkk sax ñu jokkoo aussi ak père Birahim bu fekkee ne jot bi dana ko maye allo Baye Jiili allo Baye Jiili. Baye Jiili ziar nañu la. allo noo dafa coono. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. yàgg. bàyyi ji li tey ñu gonto benn naqar boo xam ne euh, am na yaakaar ne sax jot nga ko muy suñu papa père Boy Bambara mi génn àdduna sànq ci 19 nekk euh, loo xam ne lu tiis la lu dalati ci axlu làmb hmm, noo noo noo gisee xew-xew boobu. maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mbokk yu wasaare làmb yëpp euh, ginnaaw. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hmm. ci yàlla la ñuy jógee te ci yàlla suñu borom moo ne ci moom rek la ñuy dellu hmm. euh, ginnaaw booy père booy bambara nga xamante ne suñu papa la woon nga xamante ni euh, icône la woon ci làmb nga xamante ni monument bu mag la woon ci làmb surtout génn hmm. euh, na fi àdduna bis ni ki tey mu doon loo xamante ni tiis la xamante ni dal na ci monde làmb képp euh, ñu koy jaale képp koo xamante ni monde làmb na ndax sëñ Basiru mhm. booy bambara nekk na koo xamante ne suñu papa la boo xamante ni ku nekk war na ko mun a jaale sa morom rawatina ak lu làmb mhm, mhm. ndax nag euh, sant yàlla ndax gannaaw tëdd bi nga xamante ni tëdd na ko mu yàgg lool mu doon loo xamante ni tëdd la boo xamante ni àdduna bépp yëg nañ ni booy bambara euh, yaram bi dafa sutante yaram bi neexul Mm-hmm. kon tey bu ñu yëgee lii génn na àdduna ñu bëree bëree bëri du leen bett ndax xamoon nañ ni dëddaay bi yàgg na loolu tam métti na mm-hmm. loolu waaye mm-hmm. borom nag àpp rek lay xaar. dëgg la. àpp boobu nag boo jot tey ci suñu papa booy bambara tey noonu lay jotee ku ci nekk te yàlla suñu borom fakkan bu bu mos dund rek dana ñam dee. ñu koy jaale monde làmb yëpp di ko ñaanal fële mu jëm yàlla ko dàqal loolu fii mu jógee. yàlla na ren bi muy ñëwee ci àdduna moom weer mooy bambara. ñu koy jaale ancien couloir yëpp. ñu koy jaawale képp koo xamante ne mbëru làmb nga amateur fan club ah, supporter ah, ba ci ñi nga xamante ne ay reporter lañ. Mhm. ñëpp ñu leen koy jaale képp mel ni bàyyi ji li wax nga ko tëraay bi yàgg na ndax bu ñuy fàttaliku rek le 15 avril ba ñu génn 2020 ci la ñu ko njëkkoon a tàggee ci réseaux sociaux yi mu waraloon euh, ñu ci bari génn ci sax démentir ba ñu ci bari ci ay mbër yoo xam ne jege nañu ko dem ba ci moom jël ay photo wane ne moom daal mu ngi fi donc loolu rek day firndeel ne tëraay bi yàgg na. Ah, ah, ah, mm-hmm. ci réew mi war nañu seetaat suñu bopp bu baax. Mhm. su ma ko waxee nag ci ñi wax rek laa koy wax. nga xamante ne euh, dañu nekk ci presse bi ñun ñi nga xamante ne àdduna ñu ci bëree bëri dañoo may gët. Mhm. ba pare di ñu di ñu taataan di ñu teewlu saa su euh, gis naa ci ñoo xamante ne euh, gannaaw loolu tànke woon nañ ci ki nga xamante ne mooy beer bambara te loolu ñu ñu ko tànke woon wérul mhm. ba waral na tey ñu bari ku nekk ku ko gis rek danaan est ce que lii dëgg la. Mhm. am na ci loo xamante ne jot nañ koo def euh, loolu amul. bu mhm. doon loo xamante ne lépp looy wax rek na doon lu wóor na doon lu wér na doon lu dëggu mhm. ba wax. rawatina ci internet nga xamante ne dañoo ci média bi. di ci góorgóorlu. Euh, mu doon loo xamante ne vraiment tëdaay bi métti woon Euh, ku ci nekk jàppale na ko ñuy santaat bu baax a baax a baax li Nicolas bi nga xamante ni jàppam ñu ci bari jàpp nañ ci nag mais jàppam moom àdduna gépp kenn nataabalewul ni hmm. jàpp na ci bari képp ci ci ci euh, lu mel ni seen TV hmm. def na fa kepe limbal boo xamante ni àdduna bépp dajaloon nañ seen gërëm ak seen gërëm jàppalee ko li Nicolas ñu ànd ak moom yóbbu ko ba ci ci Père Boy Bambara hmm. monde làmb yëpp Ba Djili comme ni nga ko waxee rek euh, seetlu boobu wala jàngat boobu sax moom la ñuy def. Euh, généraliser ko ci mbooleem koo xamante ni magug làmb nga te tawat jamono ji ñu toll. ndax nag euh, comme li nga wax rek li ñu ciy xalaat du leen lu dul ketal ko dajale ay moyens ñi ko war a dimbale dimbale ko ngir mu jóg mais it foofu jiili li ma bëgg a rek mooy ñu bañ a bañ a xarab kenn bañ a ŋàññi kenn ndax xam nga euh, li olof di wax rek mag rek feebar la. mag rek feebar la te it euh, mën naa ne at yi nu am ñaan yàlla ñun am ay at yu toll noonu wala yu ko sut. waaw loolu rek day firndeel ne ñoom mën naa ne seen seen jaan wàcc na ci côté bu nekk nag. Euh, ci liggéey bi ñu doon liggéey ak réew mi parce que tey boo xoolee ku ci mel ni suñ papa booy Bambara mii nga xam ne moo ñu dëddu tey. réew mi fépp foo mën di nekk ba ci zone yi gën a reculé boo nee booy bambara xam nañu ko. lan moo tax ñu xam ko. pourtant fa mu fa mu fa mu fekk baax fekk na fa yeneen i nit yoo xam ne juddu nañ ba dee fa te kenn xamu leen. boo génnee gox booba ñu nekk rek boo laajtee seen tur duñ leen xam. loolu jagleel suñu borom la boole ci aussi ak liggéey boo xamante ni liggéey bu ràññeeku la ba ñëpp teg ci seen bët. loolu rek euh, day jaadu ñu leen di jellu njukkal saa su nekk mais aussi day tax ñu ñu ñu ñu bàyyiwaat xel si lu mu yàgg yàgg yàgg rek ñun muy mag muy ndaw di góor di jigéen dañuy mhm. delluwaat ci borom bi. mën di demee nag muy nga tawat nga ñàkk tawat. nga nekk mhm. nga ñàkk caa nekk nga nga nekk cim xëy nga ñàkk caa nekk ak lu mu mën di nekk rek bu bés bi jotee euh, moom mu mu mu neex la ak mu naqari la da nga wuyu ji borom bi. wallaahi wallaahi ci ci biir loolu rek ñu jëlaat ko contextualiser ko. Euh, def ko mbir moo xam ne nii mbiru sunu borom la te saa yu jotee rek comme ni nga ko waxee saa yu jotee rek day yegsi. Euh, moom man moo may gënal ñu naan feebar bi kat bu ci diw jàppoon wala bu ci ñii jàppoon wala bu ci ñee jàppoon. Euh, ndax boo xoolee mën naa ne lépp loo xamante ni daal waroon na ci. am na ñu ko taxaw woon matoon ko sëkk te def ko. Euh, ndax euh, yàlla dogal na ba ni mu fiy jógee nii gisuñu benn yoon bu ñu bu mu ñànkee te loolu lu ama am solo la ci mag boo xam ne nii tëraay bi metti woon na lool bu doon xale mun naa ne di nga dégg yenn baat yi wala yenn wax yi mais ku mm-hmm. xam feebar ni mu mettee xam xam ne màgget rek euh, feebar la mm-hmm. ci mm-hmm. condition yooyu nga dund ko mu yàgg lool parce que ba ñuy wax depuis 15 avril ba léegi nii yàgg na te laataa booba fekk na mu nekk feebaram wallaahi euh, sëñ Bas dogguma la mais tawat bi dafa dafa yàgg. Mhm. tey li mu yàgg yëpp monde làmb seetaanuñu monde làmb képp képp koo xamante ne soit ngay mbër ngay fan si club ngay amateur euh, ngay ngay yëngu ci làmb rek euh, taxawu nga suñu papa booy bambara ci ci ci tawatam bi. Mhm. naka noonu ji li mën nañ ne sax euh, réew mi moo ñàkk ci fànn bu ne ndax ñu ci bari dañuy jàpp ne làmb ak làmb moo ñàkk tey sunu papa Boy Bambara bu ñu fàtte ne nekkoon na moniteur fële ci école nationale bu police mm, ba fa la ci liggéey boo xam ne ni euh, service rendu la police nationale mais aussi mën naa ne du police nationale rek mais réew mi yëpp la ko defal équipe nationale aussi ne na ko donc loolu it <laughs> réew mi yëpp la ko defal rawatina aussi euh, ndam yi nga xam ne ni jël na ko ci sous région bi parce que ku wax champion d'Afrique foo waxee champion d'Afrique rek foofu mu ngi fa doon représenter réew mi Sénégal loolu it ay ndam la yoo xamante ne nii amal na ko réew mi réew mi war koo delloo njukkal bu baax a baax a baax bu ñu sukkandikoo ci loolu rek jiili dañuy naan icône moom moo demati ci wàllu làmb dëgg la dëgg léegi nag euh, du ñàkk ci ay doomam koo xam ne nii ji li dana leen mën a jaale à travers wasaare lamb yépp hmm. hmm. waaw man nag damay yëkkatee njaal mi teg ko ci képp koo xamante ni champion nga nekk ci équilibre bi nga xamante ni moom la yoroon hmm. euh, ndax tey euh, sëñ Ba xam nga ku mel ni Tafa Boy Bambara moom mi nga xamante euh, na ko boppam léegi sëñ Bass dama doon wax naan ñett yi ku loo ko defal deselatu la dara ci àdduna. ki mm-hmm. euh, la ki la yóbbu Màkka nga siyaare ji Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kooku deselatu la dara ci àdduna. dëgg la kooku yéene na kooku yéene na la àjjana. Mm-hmm. tey kooku jàpp na ni àdduna fi mu toll bu doon am na ku fiy gën yéene na la ko ndax tey jox na la nga dem siyaare ji Seydina Muhammad. dëgg la sallallahu alayhi rawatina ñi nga xamante ne ay champion la ñu gis ci yow jikko ju rafet hmm. gis ci yow jikko bu leen neex ñu jël seen bopp dumbe dumbee la ko man hmm. dafaa booy bambara ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax a baax a baax hmm. di ko di ko teg ci njaal mi ci loxoom muy mu jàppaleen di ko képp mbër képp koo xamante ne rek euh, njabootu làmb nga ko ko koy jaale di ko jaale en plus ki nga xamante ne mooy caatu booy bambara moom it gis nga tur ba. Mm-hmm, mm-hmm. ndax caat ku dem ci booy bambara mm-hmm. bari na loo xamante ni tey ay témoignage la yoo xamante ni tey ko caat rek mënoon naa wax ci booy bambara. te te gis nga wane na ni dem na ba wane ni kii suma papa ñoom li nga xamante ni tey moom li ñu jégg muy daale mhm. waaw daanu nag dajit suuf mais ñu ngi jaale ñëpp dëgg la di di ci leen jaal incha allahu rabbi di wax mbokk internet yi bu subaa incha allahu rabbi wasaare lamb dinañ leen fa yeggal dégtal leen lépp loo xamante ne ay témoignage la di mhm. nga xamante mooy mooy bàmb baax na kon bàyyi ji li ma bañ a jël sa temps rek ñu def noonu ñu tàggatoo ba suba incha allah jërëjëf sëñ Basiru kontaan naa bu jërëjëf. jërëjëf. voilà kooku moo nekkoon euh, baay Djily bu wasaare nekk reporter fii nii ci kër gi ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne mu ngi ci doon ànd ak ñun Père Birahim nag bëggoon nañ koo jot waaye waxtu wi euh, mag la te tëdd na lool moom moo waral ñu mujjee bàyyi appel boobu. ba suba incha allah dinañ gisanteek moom bu soobee suñu borom dana ci amal témoignage bu yaatoo yaatoo yaatu ndax euh, ñoom xamante nañu ak xamante nañu ak moom bu baax parce que ñoo bokkoon làmb ji jàgg nañoo jaxasoo te it ñàkkut ñu bokk ay association bi ñu paree làmb ndax association yu bari ñu ngi fi woon yu dajale woon ancien gloire yi magi démb mu ngi fi woon association des anciens lutteurs euh, mu ngi fi woon euh, association des sages aussi mu ngi fi donc du ñàkk association boo xam ne dajale na leen ba ñu mën a wax ci moom lu baree baree bari rawatina li nga xam ne dund nañ ko ci biir làmb donc comme ni ko bàyyi jii li waxee rek njaal la moo xam ne dañ koy teg ci loxo yi képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi du ñu ne waa làmb wala ñeneen mais képp ku nekk ci réew mi rek njaal mi dañ la koy jox di ko eh, di leen jaal sunu papa booy bambara moom di ko ñaanal fi nga xam ne fi la jóge eh, fa mu jëm dàqal ko fu fi mu jóge eh, ba mu rëccu fan yi nga xam ne nii def na ko ci kaw suuf Euh, noonu la ñuy def santaan ñëpp gërëmaan ñëpp ndax euh, tey mën naa ne euh, lu ci bari lu ci bari ci Père booy Boy Bambara nit ñi dañu koy fàttaliku ci moom mooy xorom sa mën a bàkku ba bàyyi làmb ba pare gunge ay doomam sonn ci làmb bu mosaan ñëw stade Demba jóob ba takk sëri malgré li muy nekk mag yëpp dañ doon gis prestation chorégraphique yi nga xam ne nii da ko daan amal mais lépp ci bégal amateur yi donc loolu ay actes yu rafet la yoo xam ne nii bokk na ci ay souvenirs yu ñuy fàttaliku ci moom ñuy jaajëfal ñëpp di leen sant di leen gërëm euh, di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, di jaale aussi suñu mbokki murit yi nga xam ne nii tey dañoo amaat beneen ub tiis euh, muy suñu sëriñ suñu am di jàmm suñu xarit sëriñ aatu bu is bu tarxiya moom it ñu koy ñaanal suñu borom euh, oyofal suuf ci kawam mu tase ngërëmal Serigne Touba ba lépp loo xam ne liggéey na ko ci kaw suuf service bi nga xam ne rendre na ko mouridisme bi yal na ko suñu borom fay loolu mu taseeg wasilaam Serigne Touba xaadimal Moustapha Euh, ba mu rëccu moom it fan yi nga xam ne nii def na ko ci ci kaw suuf mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen lii moo nekkoon li ñu leen indiloon tey ci tiis yi nga xam ne nii dal na ci kaw axlu làmb dal ci réew mi yëpp ñu leen di jaajëfal incha allah ba ëllëg ci yeneen ni xew-xew danañ leen fa demal bu soobee yàlla di jaajëfal euh, kàggu mi nga xam ne moom moo nekkoon ci caméra bi moom it jaajëfal jiili mi ñu doon jokkool ci téléphone bi léegi ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf